mbokk yi asalaamaaleykum jërë ngeen jëf ci ànd bi ak euh, réew mi FM dal leen ak jàmm ci seen émission ànd aar aaru ni ngeen ko déggee ci bande annonce bi ngeen ci ànd ak ONG EMAD ak plan international euh, ñun ñëpp ñu bëgg ànd mbas mbas mi aaru aar itam euh, ñi ñu nekkal tey nag ci premier numéro bi ñu am mbégte lool ñëw ci ëttu Serigne Babacar Sy radiallahu taala anhu fekk si fi nag euh, sëtam bu tedd bi sëriñ Abdoul Aziz ci ibn Serigne Sidi Ahmed ibn Serigne Babacar Sy fekk fii tam euh, Papa Khalifa Ndiaye euh, njiital asfiyaah yi mu di ñu dalal Papa Khalifa itam nekk sët ci Serigne Babacar Sy radiallahu taala anhu ñu nar ànd aussi ci waxtaan bi ak Abdou Khadre Gaye président EMAD niki noonu Baba Sy chargé Covid bu plan international ak euh, Khadija Wan nekk kenn ci ndaw yi nga xam ne ay relais lañu ci EMAD ñoom itam am euh, wall wu rëy ci xeex bi. kon xalifa euh, sëriñ bi kuy dugg ci kër da ngay jaar ci buntu tey yow yaa ñuy dugal dalal ñu ci ëtt sang bu tedd bi bisimilah ñu jox la kàddu gi. Ah, asalaamaaleykum wa rahmatullah soxna Fatou ñu ngi lay bu baax. ak euh, mboolem ñi nga xam ne ñu ngi déglu réew mi FM di la nuyu ci sa taxawaay ndax chaque fois yaa ngi nekk sur le front bi nga xam ne mooy social ak wàllu santé ñu xamee la ci loolu nuyu tamit euh, président EMAD di Abdou Khadre Djeylani Gaye ak euh, Baba si bi nga xam ne moo fi nekkal plan international ak relais yi ñu àndal ni ngeen ko waxee euh, ñuy ubbil rek suñu kilifa suñu mag suñu sëriñ suñu Abdou Aziz si bu sëriñ Sidi Ahmed si ibnu Cheikh abu Aboubacar si fii ci Richard moom it damay wax ni rek euh, xëy na casquette religieuse bi la nit ñi di xam ci respon ci responsabilité ak éritage bu ñu fi fekk waaye it mu nekk it koo xamante ne dundam yëpp daf ko def ci jàng def ko ci xam-xam mu nekk directeur ressources humaines bu mairie euh, Gueule Tapée Fass Colobane yàlla def it mu nekkoon conseil régional jaar ci structure yu bëri kon au delà tey de casquette religieuse bi mën nañu ni kay li ngeen di ñëw pour waxtaane ko nekk na koo xamante ne xam na ko ndax tamit euh, jamono la boo xamante ni moom it toogul rek woote sëriñ déedéet dafa dem liggéey toog bu am ay diplôme jàng fu mu war a jàngee ci daara demit fekk ji tamit nasaraane mu nekk benn équilibre boo xam ne noonu la sëñ Babacar bëggoon jamonoom di ko doxee li sëñ Cheikh Ahmed Tidiane waxoon ni euh, jamono fu ñuy nangoo lislaam am na ndam mooy avocat bi député bi ministre bi waxtu julli jot ñu subbi seen robb ministre avocat dugg ci jàkk ji taxaw ci minbar bi jiite mu ne foofu la ñuy xamee ni que diine ji am na ndam ñu leen di nuyu baax di leen kii dalal. Euh, Pape Khalifa mun naa ne du hasard suñuy euh, xeex lu mel nii nekk ci ndakaaru ñëw commencé ko ci ëtt bu ni mel. Euh, foog naa ne Abdou Khadre il a bien choisi kër gi nga xam ne fi la tàmbalee lii di campagne bi. waaw fi ngeen ñëw nag di Rutière ñu bëri sax Rutière la ñuy wax. ndax tur bi dafa ame barke. ndax ceer yaakaar naa ni turu nasaraan la te ñu ngi wax ni sax dañuy soppi tur yi ndakaaru waaye li tax nit ñi naan rue ndax mooy adresse bi ñu xamee woon sëñ Babacar si ci ndakaar mu nekk loo xamante ni ci wàllu histoire mag ñu bëri dañ fi jaar bëri na tey boroom xam-xam mën naa joxe rek benn exemple muy le premier proviseur noir bu lycée Lamine Gueye di suñu papa alxaaji Badou Fati moom fii la jànge ci daara Mame Massaw Fall te chaque fois bu rombee daf ñuy fàttali ni mooy premier proviseur noir ginnaaw tubaab bi ci lycée Lamine Gueye fii la jóge ci daara kër Serigne Babacar Sy mën nañ si lim ay élite ay ñoo xam ne tey ay xalifa lañu ñoo xam ne tey c'est des ay cadre lañu de haut niveau tey ci réew mi yëpp ci daara bu Serigne Babacar si la ñu jaare jaar ci mag ñoo xam ni tamit dañu yaroo Tiwaawan jàngee fa ba mën a tey nekk ñoo xam ni tey euh, royukaay lañuy doon ci réew mi kon bu ngeen ñëwee tamit départ bi tey da ngeen fi fekk ëttu xam-xam ki fi mujj nekk ci doomu sëñ Babacar yu góor yi di sëriñ Sidi Ahmed ibn Cheikh al Khalifa Aboubacar si moom it am lu mu symboliser woon tamit ci réew mi ci toogaayam toog ci héritage bi téye ko ba tey njaboot gi sëñ Abdou Aziz nekk fi ñoom sëñ Moustapha ak dono bi nga xam ne tey ñu ngi ko fi fekk ñu toog téye ko loolu nag dafa nekk loo xam ne patrimoine la tey ki fi des ci njabootu sëñ Babacar mooy soxna Roqaya si ñu gën koo miin ci soxna Daba mu nekk héritage te li may wax ci barke rek ni hasard amul baatu tànganaa tànganaa bi ñuy dégg euh, Abdallahi tànganaa fii la wàccoon ci Dakar Richard ñëwoon fi amoon wóllëre ak njabootu sëñ Babacar yi fi nekk ak ñenn ñenn ci seen famille ndax bëri na ku daan jóge ci àll dañu naan dama routière mhm. ndax këru daara la mhm. boo fa ñëwee di nga am ku la dalal ndax bëri na mag ñu fi jaar ci dakaar mhm. nekk fi tey ay directeur maa ngi jot rek docteur Thierno Ka bu directeur euh, mu ne ma man bi ma ñëwee Dakar rue laa njëkk wàcc directeur institut islamique pour walla ni bi Abdallahi naa ñëwee dafa ñëw rek ànd ak ay frère am ñëw wëlërante ak maam bu Diagne yàlla def bi mu ñëwee routière di wut fu lu mu mën a daan doole ndax ndax ci seen dëkk loolu la ñu xam la mu njëkk a def eh, benn mag ci mag ñi fi daan nekkoon menuisier sëñ Babacar moo ko daajal benn taabal mu commencé di wër di jaay ndékki loolu ba ku yeewu Dakar rek ne xaaral ma dem ndékki ji ci tàng tànganaa dem ba tàng naa boobu barkeel mais tàng naa sant la ñu bëri xamuñu ko tàng tànganaa coloré boobu mi ngi am ci seen famille ak waa kër tàngana ak waa kër Serigne Babacar ñu bëri xamuñu loolu. day mel ni rek Ndiaga Ndiaye kon bu ngeen fi ñëwee tamit ngeen fekk fi loolu. muy taxawaay boo xamante ne tey euh, patrimoine boobu am na lu muy wane ci wàllu li nga xam ne yéen a ngi koy dox ci wàllu Covid 19 bi. jërëjëf Khalifa xam naa du ñàkk bala ñuy jeexal ñu ñëw ak yow ci sa message ci Covid 19 bi am na solo euh, kon euh, ginnaaw bi nga ñu dugalee ñu jox sëriñ bu tedd bi mu daal di nuyoo. laata Abdou Khadre di ko présenté euh, projet bi ñuy dellu siwaat incha allah ak intervention wam si Malick gannaaw bi ñu la ziyaaree gërëm la lool ci dalal bi euh, ñu ngi lay sant aussi ci disponibilité bi ndax jot yombul surtout ci kilifa yu mel ni yéen ñu bàyyi la rek nga nuyoo ak ñi lay déglu balaa ñu lay présenté projet bi nga xam ni moo ñu tax a jub tey. ok maa ngi yëkkati nuyu bu tedd jëmale ko ci mboolem ñi fi teew équipe bi bi enquête 221 bi jiital nu yooyu itam di suñu wërle di Abdou Khader Gaye di nuyu itam suñu doom baay di Abou bi yooye bi jëm ci covid 19 bi ak mbokk yi fi teew yëpp waaye di jiital nuyu aussi suñu njabaat suñu ak suñu sëriñ di suñu jaam di sëriñ Pap Xalifa Njaay fa tabarakallahu ak mbokk yi fi teew ñu ngi leen di nuyu si tur yi mag ñu baax ñi fa tabarakallahu jërëjëf si Malick ñu ngi lay fay nuyoo Abdou Khadre ma xëy na ñëw ci yow rek ñu daal di présenter euh, sëriñ bi projet bi euh, bu ko defee xëy na yaa na jekk ci wax ko tànk yi lan la ak jubluwaay bi ak surtout li ñuy xaar ci moom ndax tey dafa am lu nu sàkku si mhm. euh, ma njortu ne mooy seen kaddu ndax bu ñu waxee ak ñun bu ñu waxee xëy na déggin yi mhm. ak euh, njeexital gi dana wute lool mhm. ci ñi nga xam ne ñooy cible yi mhm. di askan bi kon euh, yow njiital EMAD Abdou Khadre ànd ak plan international ci euh, projet bi ma bàyyi rek nga waxtaan ak sëriñ bi ci tànk tey yi baax na jërëjëf Fatou Sy xëy na dañuy tënk rek hmm. pour mën a permettre sëñ bi mu jox ñu message am jox ñu ay conseil am hmm. ñaanal ñu waxtaan askan wi ndax euh, mbas mi nga xamante ne moo dal ci àddina ak ci si réew mi bett doomu aadama tiital ko euh, lëmbaaje lu bëree bëri bëri bëri mu nekk gan ga nga xamante ni itam miinuñu ko euh, xëy na moo gën a waral jaaxle gi bu mu amee kilifa yi woote ñu nit ñu jug nee nañ ci bay suñu suñu waar ñu lëkkaloo ci ak benn ONG bu ñu wax plan international Daba aadama Sy mii moo leen représenté lépp luy xeex Covid ci plan international moo ko yor bu ñu waxtaanee ak ñoom euh, ñu tënk benn benn projet bu ñuy tuddee ànd aar aaru moo di ne daal ñu ñëpp dañu war ànd dañu war ànd ci aar askan bi ci mbas mii wante ñun ñi koy doxit ñu aar suñu bopp pour mu bañ ñoo dal ndax loolu moo ñu ci mën a muccal ñu ne liggéey bi naka lañ koy defee ñu ne comme que doole bëriwul dañuy xool lu ñu mën a def rek ñu def ko ñu ne ndakaaru la ëppee doole kon nañ yem région de Dakar naka ci région de Dakar ñu tànn fi juróom-ñaari district sanitaire muy district bi ñu nekk ci Dakar Plateau muy district sud moo ëmb gore Dakar Plateau Médina ak Gueule Tapée Fass Colobane ñu jël district ouest muy Ngor Wakaam ak Yoff district centre mooy Grand Dakar jëm Hann district noor ñu jël fa euh, euh, Grand Yoff district euh, way ñu jël district ba yëpp ax district Pikine ax Mbao muy juróom-ñaari district ñu ne naka la ñuy liggéeyee ñu ne district bu nekk dañ fay tànn ay gox ay quartier quartier yi ñuy tànn yëpp tollu ci soixante quartier ñu ne comme que président dafa ne nañ dund ak jàngoro bi balaa ngay dund ax mbir dañ koy xam ñu ne dañuy laaj karce bu nekk mu jox ñu fukki ndaw fukki ndaw yooyu suñ leen boolee muy juróom benn téeméeri ndaw ñu tàggat leen xamal leen lan mooy jàngoro bi xamal leen naka lañ koy moytoo xamal leen daal lépp li nga xamante ne moo ci nekk te moom lañ ci war a xam suñ leen ko xamalee ñoom ñooñu le ñu dellu seeni pénc suñu delloo ci pénc yi ñu waxtaan ak yi ñu ne naka la ñuy def ñu ne quartier bu nekk dañ fay tànn soixante quinze ménages soo boolee ci soixante quartiers yi mu nekk quatre mille cinq cent ménages ñoom ndaw yooyu ñu tàggat nag dañu leen di jox juntuwaay maanaam gel bi ak ràññeekaay t ak lakos jox leen euh, visière ak li nga xamante ne moom nañu ñu war soxla pour def liggéey bi suñu demee ci ménage ba nag di ko jox xabaar bi nga xamante ne mooy li ñu leen jàngal du ñu yem rek ci wax leen def leen nii def leen nii wante dañ leen di yóbbul ay jumtuwaay ñu ne jumtuwaay yan ñu tànn ci ay lave ak savon ak mask ak eau de javel moom lañ leen di jox ñu ne loolu doyul parce que war nañu def siiwal à travers ay caravanes sonores ñuy organiser dinañ ci organiser euh, juróom-ñeenti caravanes sonores ñu ne aussi dinañu xool ay organes de presse ñu mën a contractualiser pour ñu mën wesaare xabaar bi ci la ñu waxtaan ak ku mel ni enquête 21 euh, su Aminta Paye moom doomi mbott la vraiment nekk jàmbaar lool ci liggéey bi lépp lu ñu sumb mu soobu ci euh, ax réew mi FM. ñu waxtaan ak ñoom ñu ne dinañ ñu gunge pour ñu mën def lu mel nii ñu ñëw tey def ko ak yow maanaam jox kàddu gi kilifa yi déglu leen ñu jox ñu seeni conseil mais ñu waxtaan ak askan wi ndax tey fi ñu toll nii dafa mel ni nit ñi dañu am relâchement am na sax ñu naan ne mbir mi amul waaw xëy na am na fu ñu ko teg am na lu ñu gis ba teg ko fa mais dafa am mag bu jàngale woon mu ne soo rombee ay xale ñu ne la papa nga ne naam ñu ne la yoon bi ku fi jaar dee dañ la dinaan tuuge wante teggil waaw moo gën a wóor waaw donc loolu olof wax na ko day màtteex du màtte bul dugal sa loxo donc daal ñu ñëw simalik waxtaan ak yow ndax fonk gi ñu fonk kër gi ndax fonk gi ñu fonk mag yi nga xamante ne ñoo ko sos ndax kóllëre gi ñu seqoon ak sa waajur seq ko Pape Khalifa seq ko yow yal na yàlla yokk leeram xare ko àjjana profité wu ci lii ci jaale la sa papa sëñ Pape Malick Sy muy suñu wëllëre bu baax di suñu kilifa waaw dinañu wéetal lool parce que doon nañu oo di ñu jox ay xalaat naan ñu doxee leen lii taxawee leen nii wante nit ku baax nit ku baax mag bu am njëriñ te baax yal na yàlla xare ko àjjana ay waajuram ak i maamam teeru ko waaw wante dundam yàquwul référence la si ñun référence la ci réew mi référence la ci àddina ni ki sa waajur yaakaar boobu nag moo ñu fa indi ñëw donc tàllal la suñu loxo pour sàkku ñaan tàllal la suñu noppi itam mu mu mu mu taxawal noppi askan bi yëpp ak noppi réew mi ndaxte wax jii ñuy taataan fii lu tax ñu gëm njëriñ bi mooy ne du ñu ndegle lay réew mi yëpp koy déglu donc jarul man ma guddal dañu ñëw pour déglu la dañu ñëw pour sàkku sa ñaan vraiment di ñaan yàlla mu yokk suture yi loolu daal moo doon tànku tey yi jërëjëf jërëjëf Abdou Khadre Gaye président EMAD ngeen doon dégg noonu. mu doon présenté projet bi euh, sëriñ bi ñu set tey di sëriñ Abdou Aziz Sy ibn sëriñ Sidi Ahmed ibn Cheikh Al Khalifa Ababacar Sy radiyallahu taala anhu gannaaw Abdou Khadre kon ñu dalal euh, ki nga xam ne moom la ñu dénk wàllu Covid ci plan international euh, sëriñ Baba si moom itam mu ñëw xëy na du ñàkk lu mu ci dolli ngir gën a mën a informer xalifa bi ñu fi fekk tey Baba ginnaaw bi ñu la nuyoo ñu bàyyi la Abdou Khadre nga am loo euh, jokk ci ay kàddoom euh, leen ko sëriñ bi jëm ci présenté ko projet bi. jërëjëf soxna Fatou euh, man xam naa sama kàddu du du gudd loolu li ñu war a wax yëpp Abdou Khadre mën na ko wax na ko dellu rek di ziar di sant di gërëm sang bi fi toog di ko jaale aussi ci tiis bi nga xam ne dal na umma islamique yëpp. si dellu suñu baay suñu maam di Papa Malick Sy Euh, si wàllu nu fi indi tey euh, wax naa ko sànq dana nokk euh, si jamono bi nga xam ne yëngal na àdduna yëngal na àdduna ba ñëpp di ko méngal la ak lu ne wax troisième guerre mondiale troisième guerre mondiale sax daan nga gis ñi nga xam ne ñoom nga doon xeexal mais bii mooy jàngoro ki ngay xeexal da nga ko sol dul gis te mi ngi nii di faat di faat di faat yàlla def na sutura nag peut-être nit ñi lu muy faatoo bariwul noonu fii senegal Euh, wala Afrique hmm. de si suturam mais ñin dafa am li nga xam ne dañ ko gëm parce que mooy sini aada mooy sini cosaan mooy sini yarin mooy aussi sini sini diine mooy l'islam bi ak tarixa mi nga xam ne am na fii comme Abdou Khadim ni mu ko waxee projet bi ñu ngi koy def si région de Dakar te ñit ñi nga wax ne région de Dakar fii fu mu nekk nii mooy épicentre pandémie bi hmm. donc mun na nañ wax cas yu gën a bëri fii la ëppee si région de Dakar parce que fii la nit ñi di tajaloo fii la nit ñi di boole fii la nit ñi di tase surtout si plateau Abdou nee na fii boo ko doon xayma nee na chaque jour lu mat ñaari million nit dinañu di dugg di génn plateau donc bu wane ne à tele point fii la cent ville nu mu exposé te toll noonu jamono bi nga xam ne fu mu nekk nii nit ñi sax joxatuñu crédibilité wala gëmatuñu sax ñi nga xam ne ñoom ñooy def communication bi si wàllu mbas parce que lu koy firndeel tey ñi ñuy wax nit ñi sol leen seen masque mais tey boo génnee tey si mbedd bi tey boo doon xool ak sa boobu di nga gis ñu bëri ñi nga xam ne du ñu sol seen masque walgal des yi leen di wax ñu ngi ko jëfandikoo si wàllu sorantewoo bi wala si wàllu raxas seen loxo ñu bëri duñ ko jëfee lu waral loolu ñaar la soit nit ñi danoo gëmul feebar bi am na wala danoo sàggante wala yéeg nit ñi jàpp na ne kilifa diine yi nga xam ne ñoo nekk fii ñi de am na bët bu ñu leen di xoolee te bu ñu waxee tamit nit ñi dañ leen di déglu danoo am yaakaar si ñoom ba pare xam na nañu ñoom bu nu waxee li ñu wax si xol lay dem parce que du waxantu ñi nax si ni kuréel bi muy plan international lu ko tax a jóg mooy ak ay xale yi surtout ni jëmale ko si wàllu xale yu ndaw yi te gis nañu ne de jamono bi si gëstu yu bëri yi xam ne def nañ ko seetlu na ne de xale yu ndaw yi surtout jigéen yi. ñoom ñoo gën a am ay mettital si wàllu mbas mi tey parce que jàng amatul si école bi xale yi ñooy toog ci kër gi duna am dara lu ñu def lu dul liggéeyu kër gi bu yàggee loolu daf leen di jural lu ñu wax benn genre stress bi nga xam ne mun na leen yóbbu feneen gis nañ tamit néew euh, euh, yi nga xam ne danoo néew doole danoo bëri fii te gis nga ñooñu tey boo leen gën dee gis mbedd gis ay xale yu ndaw yi jaay ndox wala xale yu ndaw yuy yëngatu mais ñooñu xamul sax ay jeexital yi nga xam ne mun noonu mun noonu ko am parce que tey lu lu nekk mën na leen fekk si mbedd bi plan ndax ne dafa jóg pour jàppale xale yi surtout xale yu jigéen ñi si wàllu seen ak yelleef nit ñi ndax danoo jàpp ne ne booy wax waxu lislaam rek jigéen ki kenn joxu ko ay ak yelleef wala kenn jiitalu ko wala dafa war a nekk topp si ginnaaw ko góor ki rek wala di ko war a suufeel wala di ko bund loolu tamit bëggoon kilifa bi mu dellu si si loolu daf nu dëggal daf nu jox aussi euh, pas-pas si wàllu li nga xam ne dañ ko engagé si côté wu euh, jigéen yi mais bu ñu wax jigéen yi tamit bàyyiwuñu xale yu góor yi bàyyiwuñu tamit borom kër gi donc ñun dañuy gunge emat si wàllu xeex bi nga xam ne daf ko sóobu fii dans tout les districts yi nga xam ne lim na ko fii euh, si biir xeex bi tamit du yem fii parce que tamit bëgg nañu xool aussi ni ñuy jàppalee borom kër yi parce que nit ki ak si boo ko digalee dara na nga ko si jàppale moo tax ñu ne naan ñu jënd ay lu mel ni ay jumtuwaay ay saabu ay eau de javel may may may ko kii bi forme de communication bi dañ ko def parce que dañu ne ñi xam ne ñi ñi dañoo yaakaar ñi am ay taalibe mu am ñu leen topp jox leen seen dund jox leen seen ruu jox leen seen jëmm donc je kooku bu waxee dinañ ko dégg beneen manière bi nga xam ne beneen nit nga xam ne xamoo ko wala xamoo fu mu jógee moom may waxee donc man sama maa ngi déggalu si wax bi dama ma damaa tàmmul di wax sa si kanamu di kilifa kenn yarewuñu noonu mais dama buggoon leeral rek li nga xam ne suñu kuréel moo ko tax a jóg ah ah emat di leen gërëm di leen sant di sàkku si ñeen tamit ñaan parce que fu mu nekk nii loolu rek ñu soxla fu mu nekk nii parce que moom ren moom tamit moom ni gëm si nunu yaree si diine bi nu nekk defe naa loolu rek moo fi mun dindi mbas mi ak li nga xam ne da nga ko digale pour pour moytu ko benn def yëpp ba nga xam ne feebar bi du la du la dal. Fatou Fatou Thiam vraiment ma lay gërëm di la sant. waaw jërëjëf Baba si euh, Ahmed euh, Abdou Khadre Gaye mi ngi may def signe ne am na lu mu ci bëgg a yokk euh, kon ñu may ko mu dellu si rek. waaw sëñ bi Gaye waaw. waaw koy doon dey léegi sànq Baba. Mhm. tey dañu ñëw pour si wàllu liggéey bi. Mhm. waxtaan ak suñu kilifa waxtaan suñu xarit. taataan ay conseil am wante nee naa ko bëgg naa après ñu xalaat li euh, ñuy àndeex directeur plan international bel euh, ëpp pour mu ñëw def visite officielle seet si kër gi seet si kilifa gi ndax moom aussi man bi ñu lëkkaloog moom daal gis naa nit ku baax la euh, te moom moo yor actuellement sous région bi ah Sénégal Guinée Bissau ak vraiment mu ngi ubbeeku loolu soxla na ko daal ma ne woon dinañ la ko ñaan pour def ko bëgg nañu itam wax naa ko ab Ablaye Makhtar grand serigne de Dakar parce que moom aussi suñu kilifa yu boot euh, projet bi la euh, waxtaan naa ko ak madame Soham Wardini maire de la ville de Dakar que moom mooy marraine bi ak giraas bi nga xamante ne mooy suñu parrain moom itam ñoom ñaar la ñu tànn marraine ak parrain pour que suñu waree kilifa diine yi mu am benn bés xëy na bu ñuy toog fekk ñu ñu def liggéey bi yëpp ñu def une déclaration commune xamante ni ñoom ñëpp ñooy ànd waxandoo ko donc dina wuteex wax bi nga xamante ne ku nekk dañu la seet si loolu rek laa ne woon dinaa ko ci yokk mm-hmm. ndax vraiment je tiens à que directeur man dinaa si dañ ci waxaa moom soo ñu jàppalee bés rek ñu ñëw vraiment ànd ak équipe am mm-hmm. boo def une visite officielle mm-hmm. parce que ay kilifa ñu ñu lëkkalante dafay gën a yombal liggéey bi daal incha allah loolu rek laa ci bëggoon yokk ah. am na solo Abdou Khadre Gaye euh, kon euh, njiital euh, EMAD ak Baba Sy bu plan international yore wàllu Covid ñoom ngeen doon déglu noonu kon sëriñ bu tedd bi ñu dellu si waat ci yow. Mm-hmm. ginnaaw bi nga xamee ni. Mm-hmm. présenté nañu la projet bi. Mm-hmm. ñu bëgg d'abord am sa gis-gis. ci li nga xam ne EMAD ak plan international ànd nañu di ko def. samp ko surtout ci Ndakaaru nga xam ne fii la yëf yi gënee metti waaye tey ñu ñëw doore itam euh, tournée bi euh, ci ëtt bi nga xam ne daanaka mooy Dakar ëtt bi itam nekk ci gox boo xam ne ñu fi daje dañoo bari bi ko waxee léegi kon sa gis-gis d'abord ci projet bi bala ñuy dugg xëy na ci taxawaay bi ñu ci war bi amin euh, di tool yi bu baax di leen si seen teewaay di rafetlu projet bi ndaxte gis nañu ne projet bu noble la na fii ngeen ko commencé di ëttu sëñ Babacar Sy radiallahu taala anhu ki ko fi toogaloon di sëñ Sidi Ahmed fa tabarakallahu yal na yàlla yokk leer ñu si profité di leen delloo njaar si suñu baay bu tedd boobu fi jóge Hmm. di sëñ Pape Malick Sy jalla taala anhu yal na yàlla yokk taas si barkeem xamoon nañu digganteem ak Abdou Khadre fa tabarakallahu ñuy yëkkati ziar si xalifa bu tedd bi sëñ Baraka Sy ak ak communauté bi yëpp di wax ne projet bi projet bu ndax gis nañu ne Dakar dafa euh, am recrudescence ci wàllu cas euh, ku nekk gis na ni axe Dakar Thiès Diourbel moo ëpp cas si wàllu Covid 19 kon projet bi ngeen yëkkati commencé ko fii si Dakar euh, suñu coordonnateur bi yooye ko ànd ci ak yéen ni ngeen ko présenté dal na xel ñu ñaan yàlla yàlla dugal ci loxo yàlla barkeel ko itam euh, ndax relâchement am na ku nekk xam na ko soo génnee si biti di ko constaté di nga gis ne nit ñi xaw nañoo bàyyi seen loxo ni ñu jàppe woon feebar bi jàppeetuñ ko noonu niñ ko gëme woon tuñ ko noonu te loolu nag bu fekkente ni da nga am projet bu mel nii fas yéene taxaw ngir freiner li nga xam ne moo am si valeur yooyu jikko yi euh, loolu dañ koy rafetlu di ñaan yàlla yàlla taxaw leen si bu baax yàlla barkeel ko itam yàlla dugal ci loxoom si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa bi ni ñu ko waxee tey dañu ñëw euh, ginnaaw bi ñu la waxee projet bi sàkku ci itam sa xalaat xëy na boo euh, gisee ni am na lu ñu ci war a dolli mm-hmm. wala euh, loo xam ne daal bu ñu ci sukkandikoo dana tax euh, yëf yi gën a baax ñu gën a itam ñaax askan wi euh, boo dee am nga xëy na suggestion jëm ci wàll boobu waaw su dee am na lu ma ci xalaat euh, bokk na ci ñu gën a sensibiliser jeunes yi ndax mag ñi am nañ ci seen xalaat wante jeunes yi defe naa ku gis plage yi gis e, yenn bërëb yi loisir yi xam nga ni am na relâchement e, foofu suñ ko mënee ñaan communauté bi e, comité bi ñu àgg si côté yooyu jéem a sensibiliser jeunes yi nekk foofu si ñu respecte yenn distanciation yi ak yenn mesures barrières yi loolu suggestion la si suñu xalaat bu gàtt wante li ngeen fi wax yëpp fatabakallahu xam na ne dugal ngeen ko si seen plateforme kon dañuy ñaan yàlla rek yàlla mottali ko fatabakallah bëggoon nañu itam euh, xëy na nga yëkkati woote goo xam ni mm-hmm. day jëm ci askan wi mm-hmm. ndax uh, ku jëm ci kilifa diine mm-hmm. diine ngay xaar mu wax uh, diine jooju nag am lu mu sant jullit muy taxawaay boo xam ne war na ko am ci situation yu ni mel kon xëy na taalibe yi ak askan wi ñëpp ñuy déglu jullit wala ku dul jullit doomu aadama en tant que tel am na responsabilité boo xam ni am na ko te mbas mi daf ñu won ne ku nekk danga nga war a aar sa morom te itam nit ki bu aaruwul dana la exposé ndax boo doxee ci mbedd mi doxee nu la neex dem ca kër ga da ko fa yóbbu ay mag nga fay fekk ay xale ñoo xam ne xëy na demuñu dikkuñu loola mën nañu ko dugal ci àq kon diggante nit ak nit diggante jullit ak moroomam am na lu ci war ñu bëggoon xëy na nga ñaax ci taalibe yi ñaax ci njaboot gi yépp waaw fa tabarakallahu moom eh, solo nga wax ndax fay xool Euh, jeunes yi wala xale yi ñooy génn te ñooy dugg ci ci kër yi ñooy fi fekk ay personnes vulnérables comme niñ koy waxee euh, may wax ni ci wàllu feebar bi amul recommandation bu ëpp bi nga xam ni Cheikh Seydi Hadj Malick radiyallahu taala anhu defoon na ko en ci peste bi mu di laata bu am solo boo xam ni war ko nafaraat wala ñu génnewaat ko eh, jàngal ko nit ñi ndax da si wax ni eh, benn bi dina wax nit ñi si baatin waaye wax na ak nit ñi tamit si zaay bi wax ne ni ñu respecté recommandation euh, médecin yi waaye mu wax si wax bu am solo itam mu ne ne les cache la maladie te booy xool ba mu wax si jamono jooju euh, coronavirus bi bàyyi nañu ko am di ko nëb comme si c'est une maladie honteuse maanaam euh, feebar la boo xam ne gàcce la te feebar la comme feebar yëpp yow miy dem ci médecin bi wala nga bañ fa dem ngir nëbba ko euh, sa feebar yaa ngi koy propagé te yëgoo ko yaa ngi lor sa njaboot yaa ngi yóbbaale sa famille ndax yaa ngi ko am bañ a dem si médecin wala ngay nëbb feebar bi ba mu jéggi dayo euh, loolu Cheikh Seydi Hadj wax na ko si lettre boobu mu bindoon jumaa yi en 1914 di peste bi waaye itam Euh, ñu toppaat ay tànkam ci li mu wax ni nañu delluwaat ci alquran delluwaat ci sunna si yonante bi sallallahu alayhi wa sallam si ay enseignement ndax euh, ñaan la si digle saraxe la si digle te yooyu yëpp léegi dafa tumaake ndax boo koy seet euh, Cheikh Seydi Hadj Malick radiyallahu daf ñuy demandé daf ñu ñaan ñu delloo suñu bokk ci yàlla ñu bàyyi suñu mbir yëpp ak yàlla te foofu wax na ko si zacu xulu wasallim ilallahi arumatatuub nañu bàyyi suñu mbir ak yàlla nañu taxawa tuub man bu ñu bàyyee suñu bopp ak yàlla moo xam te ñu taxawa tuub eh, yàlla lu bàyyi dinañu si musal ndax saxawa tuub bàyyi ay astaxfirullah bàyyi lay ñaan yàlla yàlla mën na la jéggal nga xam ni mooy feebar bi ku nekk xam na ni Euh, am fu ma ko waxoon balaa la te balaa nag li ko mën a tey jii rek mooy dellu tuub jëm ci yàlla toroxlu jëm ci yàlla ah tabarakallahu muy loo xam ni euh, digle mag ñi la euh, xalifa bi joxe na si ay ñaan mag ñu baax ñëpp joxe nañ si ay ñaan bay ay astafurlah bay ay salaatu ala nabi ndax yàlla wusal ñu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam euh, suñ ko defee rek yàlla mën euh, dimbali si mbas mi wante beneen bi itam mooy yàlla pour mu dégg la il sellal sa xol il faut xol yi rafet rafetal ko euh, dellu eh, tàppe xol yi ndax bay xool su yàlla demee ba teg ñu xam ni dañuy tëj jàkk yi teg ñu loo xam ni képp kuy julli ak sa moom di ko may benn distance dafay mel ni yàlla mu ngi bëgg am na mu ñu wan mm-hmm. am na lu mu ñu bëgg wax te mooy ni julli xol yi ñoo koy def mm-hmm. euh, te inna salaata tanha anil fahsha wal munkar julli dafa war a defar jikko wante est julli mu ngi defar jikko yi mm-hmm. ñu ngi julli jikko yi di gën ñaaw ñu ngi julli jikko yi di gën a doy waax loolu nag man yàlla message bi ñu lancé foofu mooy ni euh, bu fekkente ni dajaloo bi ngeen ci dajaloo seen xol nekku benn euh, tàppewu ñu xol yi ndi ko maam Abdou Aziz Dabakh radiyallahu anhu daan waxe jaawatu ko waaw loolu nag ñu gis ne kenn ku si nekk yaa ngi julli waaye yaa ngi may sama distance kon am na foofu message bu yàlla bëgg lancé foofu rawatina boobu ñaanukaay yi yàlla teg ni loo xam ni dañuy obligé tëj ko am na lu yàlla bëgg lancé foofu dematuñu màkk itam dematuñu màkk waaw mm-hmm. euh, boobu ñaanukaay yëpp ñu ngi tëj ko kon am na yàlla message bu ñu bëgg lancé ñu am solo nag mooy ñu décortiquer ko xam koy jàngate luñ koy jàngate nag mooy kenn ku nekk nga defaraat sa xol defaraat sa jikko euh, ba li ñuy ñaan yàlla yàlla mën nañu ko may ndax yàlla ci xolu nit ku sell rek la xaj te xol boobu nag du xol bu buy bokkaale te bokkaale bi bàyyi na defante yu ñaaw yi bàyyi na waxante yu ñaaw yi bàyyi na whatsapp bi boo ko déggee lu ne tànk siy dégg yooyu yëpp nag il faut ñu delluwaat suñu mbaam kenn ku nekk eh, yéene sa li nga yéene sa bopp laa yuminu ahadukum xataa yuhibba li axiihi maa yuhibbu li nafsihi Yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam wax ah, bi si des itam mooy ni réewi jullit yi booloowuñu ndax booy seet lépp loo xam ni dal na ci réewu jullit balaa kenn di intervenir sax réewu yéefee yi ñoo jëkka ñëw réewi jullit yi war nañoo jéem a booloo nekk benn euh, ñu si seet fu mel ni Arabie Saoudite bàyyi na ay tolof tolof yu am Afrique waaye doo ci dégg yooyu yëpp day nekk euh, maanaam luy affaiblir ñun suñu suñu ànd te bu ñu àndee rek yàlla yërmandeem wàcc si ñun nag li may euh, profité si seen antenne mooy ñaan jullit yi ñu boolewaat xol yi waaye surtout ñuy gestu néew du doole ci wàllu social dégg naa si seen plateforme taxawu nit ñi ci wàllu social ndax gis nañu suñu maam Abdou Aziz Sy Dabakh radiyallahu anhu am na fu réew mi daan tollu daan na woote su wootee dafay wax ni kenn ku ne soo amee kilo ceeb indi soo amee paketi suukar indi su waxtaanee mbooloo mi ba pare mu yëkkati lépp jox ko miskin yi ay loolu yëpp amatul bu saraxe dañ la ko digal te miskin yi tam il faut ñu leen di gestu ndax yàlla itam dafa am ay nitam fa tabarakallahu kon ñuy ñaan nit ñi daal ñu boole seen bopp eh, gën a tàppe xol yi gën a yéenante jàmm eh, ndax yàlla si boppam ko nit di jay ne ko que nit di jay ne ci société bi moo tax euh, mu bañ ñuy suñu bopp mu bàyyi yàlla ñu koy tere jëm si ay drogue leneen ak leneen di bañ ak ñu réere suñu bopp parce que suñu réere suñu bopp réere société bi te ku société bi doo am njëriñ si société bi waaw yooyu nag ñu bàyyi si xel te ñu gën a jàppante ñu gën a joxante cër fa tabarakallahu si lii ngeen taxawal nag gannaaw suggestion yi euh, dañ leen di ñaanal yàlla yàlla dëgëral ko mission bi mission bu noble la yal na leen si yàlla jàppale si biir ak si biti subaa ki itam fii ngeen ko commencé nga xam ne sëñ Babacar Sy radiyallahu taala anhu fii la toogoon ne mënuma leen jiite ci xër yi jiite leen si jur yi kon ñaanam ak barkeem xam nañ ne des na fi kon fii ngeen ko commencé yal na ko yàlla barkeel te fu ngeen dem itam ngeen am fa satisfaction bu ëpp bi si barke sëñ Babacar Si la jaratanam xam naa fi ñuy jeexalee rek si jégg jéggalu lool ci <laughs> waxtaan wi laaj yu xaw a bari yi requête bu plan international mu jëm ci jigéen ñi ndax eh, tey jigéen ñi ñoo yor kër yi jigéen ñi ñooy yar ñooy defar eh, jigéen ñooñu nag islam yëkkati leen ba ci kaw macha allah ku xool histoire taarix xam ne islam jox na jigéen gëddam te itam jigéen bu amul ci société kenn xamul lu muy doon eh, tey nag ñu toll foo xam ne baaba ak ñeneen ak ñeneen def nañu constat leneen la ñuy bëgg indi buñ ko dugalee ci cadre mbas mi itam dañuy gis ni jigéen ñi am nañ ci wàll wu rëy kon xëy na nga dikkaatal ñu ci palaasu jigéen ci islaam palaasu jigéen ci tarixa bi palaasu jigéen tey euh, ci situation jamono ni mu toll am na dëgg ndax lislaam euh, dafa delloo jigéen palaasam lislaam dafa fekk jigéen ñu koy suufee mu yëkkati ko euh, diine lislaam moo fekk si taarix ku am doom bu jigéen sax ndax gàcce lay doon mu dindi ko euh, kon jigéen dafa am solo si éducation euh, fii ñu toll ci mbas mi itam euh, jigéen ñu am nañ ci rôle bu am importance ndax ñoom la xale yi di déglu ñoom la ñuy bàyyi si kër yi ñoom itam ñooy relayer information yi te nag ñoom it am nañ ci wàll bu am importance boo xam ni ñu ngi koy xaar ci ñoom euh, li nga xam ni mën nañ ci mën waxitam wax itam mooy ni euh, gis nañ ci seen taxawaay nag wax dëgg yàlla euh, xanaa ñaanal leen yàlla yàlla dëgëral leen euh, ñaan it état ñu gën leen doole euh, fa tabarakallahu li nga xam ni moom la jigéen di représenté ci société di ko représenté ci famille di ko présenté ci gox yi loolu kenn amul nattable ne suñ leen boolee ci liggéey bi te mooy xeex lii nga xam ne euh, yàlla moo ko wàccee yàlla dinañu ci jàppale rawatina nag euh, yàlla mën na jaar ci ñoom ba wàccee yërmande ci réew mi wàccee yërmande ci àdduna bi nag ñu ngi di ñaanal yàlla yàlla dëgëral leen ñoom itam tabarakallahu di profité si seen teewaay soxna yu baax yi di leen encouragé si seen taxawaay yàlla dëgëral leen incha allah amiin kon ni ñu ko waxee woon ci ndoxteel bi ñu ànd ak relais wu Emadi ak Plan ñu ñëw ñoom itam euh, wax seen taxawaay ci xeex bi en tant que ay ndaw euh, surtout di ay jigéen aussi am solo loolo ci campagne bi nga xam ne sumb nañu ko ñu door ak Khadija Wan mi nga xam ne moom mu ngi ànd ak waa Emad di doomi Dakar Khadija ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci waxtaan wi Eh, maa ngi leen di maa ngi leen nuyu ku nekk si tur sa sant maa ngi nuyu tamit sama maam di la nuyu yow it di nuyu sama papa ak sama nijaay yi fi toog macha allah seen taxawaay rafet na eh, di nuyu tamit sama maam bi comme je l'ai eh, li ma ko bëggoon laajte mooy ak mbas bi bu mu ñëw ba léegi. xam nga xale yu jigéen ñi si kër gi harcèlement mi ngi bëri viol ak abus yi ma ci doon laajte lan moo ci xalaatam ak gis-gisam. bàyyi sëriñ laaj yu baax hmm. ah. xale jigéen yi des ci kër gi ak hmm. xëy na ni ñu vulnérable ci yenn mbir yu mel ni ñuy dal ci seen kaw di leen mettital yenn saa itam ñu sàkku leen hmm. euh, def leen daal mbir yoo xam ne yu doy waar la bari lool ci jamonoy tey xëy na noo ko gisee ak itam ban appel nga ciy lancé waaw bu jaatuwul la ndax ñoom euh, personne vulnérable ni euh, ku nekk xam na ni ñooy avenir bi itam xale yu jigéen yi war nañ leen gën a protéger ci côté boobu foofu nag dañ fiy interpeller ñi nga xam ni euh, ñooy borom kër yi ñu téye xale yi wante itam ñu jéem a ay mesures yiñ leen di protéger rawatina ñoom ñooy avenir bu ndax ku nekk xam na ni jigéen mooy yaay nag eh, ñun di ñaanal yàlla itam yàlla aar leen leen si barke mag ñu baax ñi Xadija yow ba lañu lay bàyyi itam eh, xale nga jigéen nga teg ci mbas mi yow ban taxawaay nga ci am ak eh, boo nekkee ci quartier bi ak say moroom nan ngay taxawee ba ñoom ñu mën a xool ci yow ñoom itam am benn euh, attitude boo xam ne dinañ ko am vis-à-vis de coronavirus ndax ku nekk tey yaa war a aar ñi nga xam ne ñoom nga nekkal entre protégeant tu protèges l'autre mais soo exposé sa bopp aussi yaa ngi exposé ñeneen ñi c'est vice versa kenn koo xam ne deful wareefam rek mi ngi lor boppam mais mi ngi lor ñeneen donc yow personnellement en tant que jeune man maa lay laaj léegi ginnaaw bi nga laajee suñu maam <laughs> ban taxawaay nga am ci mbas mi. Euh, li ma mu amee ba xam nga problème yi bëri na comme ni ma koy waxee abus yi viol yi lépp bëri na comme li ma leen mën a wax mooy puisque mbas baa ngi fii te xamul kañ la ak naka lay demee mieux vaut ñu ñu distance ak lu ñuy diggal di takk masque di respecter distance ñu wax tamit di jël suñuy matuwaay parce que ñi ngi xool bu mbas bi commencé ba léegi. suñ leen wax ñuy jël seen précaution comme respecter distance yi arrêté embrassé ak yooyu dafa mel ni wàññiw si dara parce que koo romb tey yaa ngi koy gis mu ngi nuyoo foo kafre tàppante te yooyu yëpp xam nañ koy tere mais terewul wàññiwul dara man bu nekkoon li ma si mën a wax mooy ñu métti yooyu yëpp parce que tamit defuñu ko ñun ñoon kese ñu ngi koy defar ndax suñuy proche ndax tamit yow boo génnee tey respecté woo ñu la wax boo duggee si si kër nga génn te si kër ngay duggaat boo duggee mi nga ko wàllu say proche sa yaay sa pap sa rakk sa famille mieux vaut kon ñu respecter loolu parce que su fekkoon su ñu kese lay yem loolu du wax mais day propagé wu te nu muy propagé woo la gaaw kon mieux vaut daal ñu jël suñuy matuwaay bu baax a baax. moytu plage yi parce gi jël nañu plage yi lool ak doole <laughs> euh, te ñu ngi tàmbalee dem si yeneen yoo xam ni également daf leen di exposé te euh, li ci maam sa tëkkay jël Abdou Khad moo ko wax ku bàyyiwul maam bàyyi nga tante bàyyi nga yaay bàyyi nga bàjjen boo xam ne di nga ko seeti mhm. te wax dëgg yàlla ñooñu ñu cher lañu ci ñun am solo lool ci suñu dund gi kon war na ñu leen aar te ni ñu leen di aaree mooy ñun ñu aar suñu bopp parce que virus bi moom du demal boppam mhm. ci ñun lay jaar di dox li muy dox tànkam yooyu nga xam ne dara du ci jàmm kon Abdou Khadre ñu ànd ak euh, deuxième jeune bi xëy na pour une dernière question balaa ñuy yëkkati jotaay bi waaleykum salaam Bintu ñu ngi lay nuyu. maa ngi hmm, rek. fii noonu eh. <laughs> maa ngi nuyu sama yi fi teew suñu maam bi ak yéen ñëpp. Hmm, alors bàyyi la xëy na am laaj bu dee am na. boo suñu maam bi nga xam ne tey moom la seet si bala ñuy ñëw ci yow aussi ak sa taxawaay en tant jeune si mbas mi ak ni ñu koy xeexee. waaw euh, dañu gis depuis apparition Covid bi comme li ñu mën a wax fermeture mosquée yi yi genre lieu de culte yi ak jàkk yi daal kenn jumeetul juma di julli juma ak yooyu yëpp dañu bëggoon xam lan mooy sa xalaat ak lu si sa taxawaay ci loolu daal. waaw naa tontu woon naa sax question boobu. waxoon naa ni lenn li misaal la bu yàlla wàccee ndax xol yi inna salaata tanhaa anil fahshaa'i wal dafa war jikko su xol yi àndatul na yàlla wàccee loo xam ne dinañ tëj jumaa yi tëj jàkk yi ku ciy julli itam di nga daan sa ay maat te loolu si ngiru imam Malik kenn bëgg ko kenn santaane ko itam nag ñu jàng jànge ne misaal la bu yàlla wàccee si na xol yi dañ war a ànd su xol yi àndee ñu mën a jur yi ni ko yàlla bëgg su xol yi àndul yàlla tëjaat ay jàkkam di ñu seetaan loolu daal ñu amoon si liñ leer na leer na de allah alors euh, en tant que jeune yow ban taxawaay nga am ci mbas mi yaa ngi ne école nga jógee mhm. école boobu naka ngeen di dundee mbas mi parce que am na reprendre effectivement ñu nekk classe d' examen mais ñu bëri amoon nañu ngeen reprendre naka ngeen di doxalee donc est ce que yéen a ngi bàyyi xel gestes barrières yi en tant que relais déjà ban taxawaay nga am si si wàllu boobu euh, maa ngi ñaax sama waa classe yi sama waa koñ su ma ñëwee damay wax pour ñu takk masque yi sama kër su wàccee directement non dañ may wax teg nga sa saat nga dem sangu ba pare balaa ngay dugg ci nit ci ba pare di raxas suñu loxo yi daal di moytu mesure barrière yi ba classe moom école moom noonu la bu ñu ñëwee jox nañu suñu masque ku nekk benn par benn mooy toog sa place voilà amul ay récréation yooyu yëpp amatul. Hmm. amul lonkante dem ndekki gi yëpp dañuy moytu daal ndaxte feebar bi mu ngi fi. demagul ba léegi nu ñu mën a def pour moytu ko rek dinañ ko def. Hmm. soobee yàlla solo macha allah Bintu Gueye bokk ci relais EMAD yi euh, euh, sëriñ bi xam naa ne sanal naa la tey ñu jéggalu bu baax. Euh, sànq danga wax loo xam ne aussi euh, dafa am solo euh, bu ma la déggee mbas mi am na xëy na nu ko jullit ñi di jëlee mu doon avantage ci ñoom ndax itam lépp lu nuru safaan boo ko xoolee ba ca biir yiwa nga ca ndax yaakaar nga ci wàllu diine mbas mi mënees na koo jëlee noo xam ne yiw la ñu mën a indil hmm. maanaam bu ñëpp toogee xalaat ci xam ne hmm. yàlla ni ñu ko waxee yónnee nañu message boo xam ne hmm. dañu ko wax a décortiquer bu nu ci sukkandikoo defaraat jikko yi euh, yaakaar nga ni xëy na yëf mën naa wëlbati ko doon yiw ci ci ñëpp waaw ndax euh, yàlla yónnee nañu message message boo xam ni war nañ ko jàngataat suñ ko jàngataatee li ci jëkk tée mooy yàlla wax ni wa innahu li hubbihi la shadid maanaam fa mel ni c'est la passion des richesses qui vous absorbe maanaam di daw jëm ci àdduna di daw jëm ci bien matériel ba fàtte lépp loo xam ni moom la ñu yàlla sant am na kuy julli sax te xelam ak euh, teewlam day des ndax euh, topp àdduna topp alalu àdduna te yooyu yëpp il faut que ñu bàyyi ci xel delluwaat suñu bopp ci yàlla defaruwaat delluwaat suñu bopp ci yàlla euh, delluwaat moytu bokkaale bi euh, gestuwaat ni euh, ñuy wax seen loxo jotu seen gannaaw euh, solidarité bi ñu renforcer ko yooyu ay côté positif la yoo xam ni yàlla mën na def bu ñu génnee ci mbas mi ñu gën ko ndax loolu rek moom moo si mën a génne waaye moo si mën a musal itam fa tabarakallahu ñu ñaan yàlla yàlla tey ji ko musal si képp ñu am euh, musal si ñëpp itam ko ci àdduna bi yëpp si barke yonante bi sallallahu alayhi wa sallam yi dafay fekk si li sëriñ Sidi Muntaxa wax mm-hmm. sëriñ Babacar Sy Mansour wax ko mooy ni euh, mbas mi ndawal yàlla la mm-hmm. ndawal yàlla jooju nag ñëw defar si ñu xëy na ni nga ko waxee yàlla dañu ci amee dégg ak topp ba defaru mu doon njariñ ñu ngi lay gërëm bu baax sëriñ bi di la jéggalu itam ci <laughs> waxtaan wi xaw a gudd bi ma fàttali ni ànd aar aaru ngeen di teewlu ci réew mi FM ñu ñëwoon tey ci ëttu sëriñ Babacar si fii ci digg Ndakaaru fekk si woon fii sëriñ Abdoul Aziz si ibn sëriñ Sidi Ahmad ibn Cheikh al Khalifa si àndoon ak Pape Khalifa Ndiaye mi nga xam ne mooy président Asfiyahi moom itam radiyallahu taala euh, ñu bàyyi la xëy na nga tàggatoo ñu daal di yëkkati jotaay maa ngi gërëm équipe bi yëpp euh, ak euh, di la gërëm yow personnellement di gërëm Abdou Khadir Gaye di gërëm ñi ko teew yëpp itam di wax ni lii fi yàlla wàccee. yal na ko yàlla yëkkatil boppam si baake mag ñu baax ñi eh, wax nga ko sànq suñu baay bu tedd bi Sëriñ Babacar Sy Mansour ak eh, suñu baay Sëriñ Muntaxa Mbàkke wax na ko eh, lii dafay dox mission wante mission la boo xam ne kenn ku si nekk war nga si jàngataat sa bopp yooyu tam nag yàlla nañu yàlla may dégg ak topp yàlla bàyyi fi suñu kilifa yooyu ba si kanam a kanam eh, yàlla dëgëral seen équipe bi fi ngeen bëgg àgg àggale fa seen mission yàlla àggale leen ko si barke Cheikh na Tijaan radiyallaahu taala anhu di leen gërëm di leen sant di gërëm suñu eh, sëriñ Pape Khalifa Ndiaye fa tabarakallahu ki nga xam ni moo fi représenté daara Mouhsinine tamit si Abdourachak Touré ngi fi teew ñoom it ñu leen di nuyu di sant ñëpp ak suñu doomi baay bi di Abou Sy fa tabarakallahu di gërëm xale yi itam asalaamaaleykum wa rahmatullah kon mbokk yi lii lañ leen indiloon tey ci ànd aar aaru ak waa EMAD ak plan international ñu ñëwoon ci ëttu Serigne Babacar Sy ñu di leen dig daje beneen dimanche incha allah dalal beneen kilifa ba tey jëm ci xeex mbas mi di coronavirus Fatou Thiam Ngom moo fare woon ci kàddu gi gërëm équipe technique bi yépp kon jërë ngeen jëf ñu yendoon jàmm